prolonger outre mesure mandat wu député yi fallait ñu amal élection yi mais premier juillet ci Sénégal ci nawet ci école bu war a tëj te tëjul ñu sante ko yàlla ak nguuru benn bokk yaakaar ba ñenn ñi ñi ngi jeexal seen composition ñeneen ñi ngi waajal examen yi donc yooyu yëpp nekk na ay mbir yoo xam ne xëy na du expliquer lépp waaye dana tax ñu mën comprendre lu tax nit ñi nañu waroon génn génn wuñ alors Cheikh dinaa dellu soit yow ci kanam tuuti quand même parce que man li ma ci jaaxal mooy euh, comment ça fait vraiment leader yëpp participer ci élection yi ñu wax ci ay programme mu assise wax nañ fa yu bëri donc xam nga yuñ ci wax dafa bëri mm-hmm. euh, mais dama bëgg a jël juste rek euh, Ibrahima Kamara suma ma jumulee def naa moo nekk maatam Ibrahima waaw Cheikh du yaa ñu teewal maatam de waa maa ngi maatam waaw kon Matam tam bëggoon nañ nga wax ñu tuuti rek résultat yi naka la daanoo foofu. balaa ma di dellusiwaat ci plateau ba ak sunu mbokku invité Ibrahima ñu ngi lay déglu. waaw résultat yi fii ci euh, région de Matam yenn hmm. bureau euh, témoin yi ñu euh, jot a recensé pour le moment foofu nag coalition Benno Bokk Yaakaar moo jiitu ndaxte boo demee Matam 2 nga xam ni cinq bureau de vote moo fa am Benno Bokk Yaakaar moo jiitu ñu ngi am 772 voix PDS topp ci am 155 voix. Euh, taw topp ci am 72 voix bokk gis-gis euh, tegu ci am 7 voix Matam 1 euh, tamit 3 bureaux de vote ci fa nekk Benno Bokk Yaakaar moo jiitu ba léegi am 373 voix CDS topp ci am 54 voix taaw topp ci am 14 voix coalition Salam am 13 voix bokk gis-gis am 9 voix fi nga xam ne mooy commune bu Wuro Sogi tamit bokk ci commune bu ëpp ay votants yi tamit Benno Bokk Yaakaar am na fa 2604 voix ci euh, commune bu Ourossogui bi yëpp confondu euh, PDS am 160 voix Bokk Gis Gis am 150 voix euh, commune bu Bokki Diawé itamit bokk ci commune yu gën a rëy ci région de Matam moom itamit huit bureaux de vote yëpp boo ko boolee Benno Bokk Yaakaar moo fi jiitu ñu ngi am 1251 voix PDS am fa 58 voix donc commune bu. Sinthiou Bamambé itamit euh, benn bokk yaakaar moo fi jiitu am 837 voix waaye jamono ji mu toll nii nag euh, ñu euh, dajale ñi nga xam ne ñoo toog ci benn bokk yaakaar waaye nañ jàpp daal ne moo jiitu ci commune bu Sinthiou Bamambé ji commune bu Waoundé itamit résultat globaux yi ci huit bureaux de vote yi fa am benn bokk yaakaar moo jiitu am 1017 voix parti démocratique sénégalais topp ci am 40 voix. donc am na yeneen diwaan yu ci mel ni ak Kanel ak ay euh, Ganguel sule ak yeneen communes yu mel ni Dembankaani ak ci Thilogne yoo xam ni daal Benno Bokk Yaakaar moo fa jiitu donc loolu mooy euh, tendance bi fii Euh, Cheikh pour le moment. d' jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di la sant di la wax ba ci kanam tuuti gis nañ ne daal sa gox Benno Bokk Yaakaar moo fa jiite góom waaye le PDS s'accroche toujours. Mm. Ali Ali Khoudia Ali ma ma laaj la loolu quand même est ce que est ce que programme bu quand même parce que malgré la présence des leaders maanaam leaders yëpp teewoon nañ ci leaders yi nga xamante ne yëpp gisoon nañ leen ci présidentielle bi. Mm-hmm. participer nañu activement ci législative bi. Mm-hmm. waaye dafa mel seen participation daal jëriñu dara. Mm-hmm. waaw mais xam nga Cheikh de toute façon ah. est ce que dañuy dem de la classe politique. xam nga aussi nag vraiment euh, comme li ma la waxoon léegi ah. Sénégal on a vécu un long moment de pré-campagne et de campagne électorale dafa mel ne sax on a un surdose ah par rapport à la chose politique. nee naa la raison yi ko mën a expliquer aussi bari na il y a peut-être que la méfiance un peu de la classe politique ah ñëpp aussi ñu jël leen dugal leen ci benn sac ah cetera xam nga ak coow li am toujours ah autour de la politique au Sénégal li ma la doon wax sànq la mm. pratique de l' exercice politique te ay dégg nga ay audit ak lu ne yaa ngi koy mel ne daal les gens commencent peut-être avoir une certaine idée ah des gens qui exercent la profession politique mais je dis que loolu lépp c' parce que actuellement on est à un moment la pratique politique a connu un certain dysfonctionnement boo xam ne war nañ ko redresser sincèrement te loolu par rapport à l'assemblée ah man je ne suis pas contre que ñu jox Macky Sall la majorité te loolu sax moo gën sinon ëllëg. moo gën si non non si ah, parce que aussi non non non ñu ne non Cheikh ñu ne bokkul ci biir en France dañ ne Sénégal war nañu tester sax mbir mi non non non Cheikh euh, qu'est-ce que ça devrait donner quand même opposition am majorité assemblée nationale non Cheikh nañ waxante dëgg ah. président bu fi toog ba léegi da am sa majorité pour gouverner France nga ne la barki dem dañoo def élection présidentielle législative ils ont donné la majorité pour permettre au mais sans ça le président ne peut pas travailler. non il va travailler ah. non Cheikh il va travailler. donnoo man man la laa wax de man. waaw pas contre à ce que mu am une majorité. <laughs> mais c'est que le danger mooy. Hmm. Sénégal liñ doon muñal yeneen président yi dootuñ ko munal muñal président bi Sénégal moo toll foofu léegi tu sais maintenant le le le euh, Sall ci boppam avec sa majorité à l'Assemblée nationale il sera obligé. de fair avec la situation du moment Sénégal léegi ñoo tollu foofu ils vont contrôler ils vont surveiller et ils vont être très par rapport à la politique qui sera menée de tell sorte que mu am majorité ak mu ñàkk ci am du wàññi dara Sénégal moo toll foo xam ne léegi y la le contrôle y la contrainte te loolu fu mu amul baaxul donc ce qui fait que c'est Sénégal qui a changé ce sont les contextes qui ont changé le président Macky Sall est obligé de tenir compte ah du baromètre du peuple maintenant te loolu c'est depuis le 25 mars ah tu as vu léegi ñëpp a fipp taxaw di contrôler ñun ñëpp nekk nañ sentinelle léegi. sinon élection yi kenn contrôlé wul nag. non non non. yi vraiment ñu doon bu ñu xoolee xale yi doon ñaxtu ñoom kenn demul voté presque. non te ñoom ñoo doon ñaxtu fii keroog le 23 juin on s'en souvient. non c'est des choses différentes. Ah. man je parle quand même de la majorité ou non à l'Assemblée. parce xam ne. waaw les choses ont changé. te bu ko yi risque de se tromper. même dans la pratique gouvernementale ñoom ñëpp ils sont en compétition maintenant tous les ministres sont en compétition parce que Sénégal léegi on veut des résultats on veut on veut ça liggéey parce que dafa dañu toll foo xam ne dañu war liggéey nag dëggantaan pour askan wi bàyyi le jeu politique et politicien la bi ñuy nekkee à longueur de journée ça ne nous mènera à rien du tout xam nga qu'est-ce que les Sénégalais ont sanctionné le 25 mars c'est un type de comportement qu'ils ont sanctionné di politique guddeeg bëccëg te dara du feeñ. parce que am na ñu ne benn bokk yaakaar c'est plus ou moins la même chose hein comme nguur gi fi nekkoon. non non on ne lui souhaite pas. ah on souhaite on souhaite et c'est heureux. tu sais bi ñuy wax naan euh, Moustapha Niass à l'Assemblée je pense que man il ferait un bon président. du moins ce qu'on attend de lui ah. am na expérience mag la am na expérience def na lépp parce que assemblée aussi il faut des hommes d'expérience au perchoir. pour ñu mën a xam boo fa tegee xale xuloo xeex la fay nekkee. yaa ngi dégg donc le problème mooy. nañ fa teg un homme d'expérience loolu ça ne va pas ça ne va pas empêcher le peuple de surveiller ñi mu élire parce que Sénégal dañu toll foo xam ne dañu war liggéey xam nga ce sa se passe maintenant mooy que on fait appel à la compétence et à la valeur ajoutée des uns et des autres ku nekk dañ lay xaar nga indi sa contribution yow loo indi Cheikh nga teg kii lan la indi ñu teg il faut qu'on aille de l'avant foofu la Sénégal yi toll et sur ce point là c'est le message qu'on a voulu faire passer le c'est le message kon a euh, le 20, le 23 juin c'est le message que le peuple a lancé aussi le 25 euh, le 25 mars on a élu un président pour qu'il se mette résolument au service du citoyen sénégalais toppatoo problème xale yi jeunes yi toppatoo problème mu location yi toppatoo problème dundu bu cher bi ce sont loolu mooy les priorités du moment léegi nag pour accéder à ça il faut des hommes aussi compétents et des hommes de valeur ñi ngi wax naan le nouveau type de député c'est bien mais le nouveau type de ministre aussi dafa war am c'est bien le nouveau type de citoyen dafa war a am tout ça c'est des choses yoo ne c'est bien il faut que ñu dépasser la parlotte inutile les querelles politiciennes parce que la pratique politique n'a de sens que si au bout de la chaîne il y a le résultat c'est le résultat qui compte au bout mais yaa ngi liggéey pendant dix ans nekk au pouvoir xale amuñu liggéey dund bi wàññeekuwul location bi di gën a cher atali yu baax amul nit ñi duñu duñu jàng nit ñi duñu faju fan la fan la résultat ba nekk amul mhm. pour faire des résultats il faut des hommes compétents ministre yi nga gis yëpp gis nga ku ci liggéeyul day feeñ parce que Sénégal moo toll foofu cheikh léegi tu sais on a toujours cru que c'était la démocratie qui apporte le développement ça c'est faux c'est pas la démocratie qui apporte la développement lan moo indi développement gis nga boo demee Chine ah c'est un pays c'est la première dictature mondiale Chine benn parti politique moo fa nekk ñëpp a ciy bokk par force ñëpp am carte la carte du parti communiste c'est forcé boo juddoo tey une semaine après ñu indil la ko c'est forcé amul démocratie mais teewul xoolal Chine fi mu toll boo demee ay yeneen kii noonu la. donc yow yu mel noonu nga bëgg def fii. non non non c'est-à-dire que ce développement. c'est le contrôle et c'est la sanction <laughs> c'est la bonne gouvernance uh-huh. xam nga bonne gouvernance ñaari levier yooy on contrôle et on sanctionne dañuy contrôler li ngay def baax na wala baaxul su baaxee alhamdulilah su bonul su fekkee baaxul ñu sanctionner mais ñun on s'est toujours trompé ah les gens doivent aller vers le travail ñu laaj ñu laaj ñu laaj Cheikh Cheikh Gueye est-ce que les populations ont vraiment tort quand même de vous juin absolument tooñ parce que contexte yi du benn. Hmm. en mille bi ñuy fal président bi fi ñëwoon dañoon nañ ko jox majorité pour mu mën doxal liggéeyam loolu la ñu def mais bi ñu ko joxee majorité dem ba gis ni kii majorité bi au lieu mu sukkandiku ci liggéey mais da doon indi ay jafe-jafe ak tànk bukki hmm. boobu la nit ñi regretté lu taxoon ñu jox ko majorité hmm. mais nit doo xam jikkoom ba noppi xam ni mës naa rey nit wala nga koy jox paaka jox ko jaasi bu boobaat bu def musiba mais am na ñoo xam ni mën nañu yor paaka yor jaasi te duñ ci rey sax bàyyi ma waxuma la ak nit kon ci nit ki ngay dénk la te man li ma gis ci Macky Sall mu wax ko jëfe jëfeegum ko nit lu ko xam ne buñ ko joxee majorité da sukkandiku ci majorité bi pour liggéey Sénégal tabaxaat Sénégal bu mu am xar kanam gu bees waaye du sukkandiku ci majorité di def lu ko neex mel ni mooy buur di bumi parce que ay observateurs yu mel ni quand même Abdoulaye mu fi toogee tey suba nee na vraiment mbir yi daal nu muy demee nii daal dalul xel parce que aussi am na yu bëri Macky Sall waxoon na da ko fi dindi lu demee nii Sénat yeneen ak ah non ko woon mais bokk Benno Bokk ak assise nationale yu bëri mais dafa mel ni sa waay doon bañ sax à côté dafa demel ni léegi yéen ñëpp da ngeen ko nangu parce que c'est juste une façon de caser une certaine clientèle politique ba moo tax askan bi daal xaw a mer ne bon vraiment euh, politique yi da ngay ñëpp mburu ko fëriñ ko quoi. man de gisuma lu tax. Hmm. nit ñi war a mer. Macky Sall mi ngi door a am 100 jours. lan la fi defagum lu tax nit ñi war nañ ci sukkandiku naan dañuy jaaxle dañuy am lan lim fi defagum yëpp ay engagement la yu mu jëloon mu commencé di ko dérouler mais nit nit ñi toog ba am juróom-benn weer ba am at xool ndax acte yi muy posé ak li muy def méngoo woon na ak engagement yu mu jëloon man de géej laa weer a mujj dëgg laa xam dëgg laa li ma gisugum wax dëgg yàlla mu posé ko comme acte nekk na ay acte yoo xam ni acte la xam ni am na njëriñ ki ngir askan mais loolu nag bu amee nit ñi dañ ci war tàccu encouragé ko. mais dafa mel ni yéen yéen a ngi commencé changer parce que yéen vous êtes membre actif des assises nationales te assises dafa bañoon li nga xamante ne moo di Sénat beeg yooyu. xam nga.